بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي نعمل دي نيو دي سياري لن لان نيانال جام لن يي يبيت ñoo ngi ñaan yàlla danga ko tagoore na ko defal mu dellu siwaat ci sunu jotaay bu ñuy faral di seq ay bés gu ne ci jéem tontu ay laaj tey nag lu mat fukki laaj ak benn dikk nañu fi ñuy jéem tontu laaj yooyu rek sunu kem kàttan laaj bu njëkk bi day wax ne góor gu amoon soxna senn soxna am lu mu ko wutal lu mel ni ak climatiseur defal ko ko ci néegam yàlla dogal mu amaat seneen soxna nee ndax yemale giñ digal góor mu ko yemale ay soxnaam ndax day waral day laaj mu jëndal kii mu amaat primature ba mu jëndaloon ku njëkk wax maandu lañ sant lañ sant maandu ak jamale nag bokkul maandu lañ sant ku am seen soxla euh, lii lii wax nag mooy ku am seen soxna am yum ko wutal amaat seneen soxna ndax da ko war a wutal yi kee li nga aju ca yooye nu ñu demee bu dee lool ñoom ñaar ñëpp a ko aajowoo xam man ko kon na ko wutal keneen ki ñëw itam man ko bu dee loolu nag day aajoy kële te du aajoy kii loolu mooy xàjjale maandu ak yamale maandu mooy ku ci ne lu mu tam man ko mu def ko bañ leen a wuutale ci wàllu googu loolu fi maanaam waaye santuñ ko lu mu defal kii defal ko kii bu dee loolu daal ñoom ñëpp a ko aajowoo moom kon lu mu ci defal kii bu fekkee jenn ñoo fi nekkandoo moom day mënandoo ñaar yëpp mu defal mu defal mu defal ñëpp daal moo xam ñaar rek moo xam ëpp na ñaar day mën a defal ñëpp mu defal ñëpp bu mënul la defal ñëpp mu bàyyi ñëpp ginnaaw lu ñëpp di aajowoo la bu dee loolu nag kenn ko ci aajowoo la ñenn ko ci aajowoo ña aajowoo ñoom defal ña ko defal bu dee lu mel nii nag ba muy yor kenn daa am lu mu ko defal ginnaaw bi mu yor ko defaloon kii itam na ko bu ko mënee war nag koo defal waaye bu ko mënul nag mënu ko euh, kon daal maandu gi lañ santaane sama ñoom ñi nga yore daal ku ci ne lu mu aajowoo ta nga man ko nga defal ko ko bu dee farata bu dul farata ta nga man ko ba tey nga defal ko ko rek waaye farata ji moom ci la la sañ a taxawoo lu dul farata nag sañ nga jaa taxawoo ñaareel laaj bi day wax ne góor la gu am ñaari soxna ak ku njaboot daal di génn àddina bi ñuy génn àddina nag kenn ci soxna yi tolloon nag diggante waaye xamuñ ko woon ba miraas ba noppi bu miraasee ba noppi nag dañ door a xam ne am na ci ko tolloon ab diggante ñaar nu ñuy def loolu de mën naa dugg ci laaj bu gën a yaatu rek mooy daal ñu miraas ba noppi biir ñun jàppoon ne ñoo war a donn dafa am ñun jàppoon ne ñoo war a donn ba tax ñu miraas jox leen ko ñoom ginnaaw bi nag ñoo xam ne am na keneen wala ñeneen ñu ci waroon a bokk li ñuy def mooy dañ koy miraasaat dañ koy miraasaat miraas ma xamoon nañ lam bàyyi woon num toll ñiñ ko joxoon tam xam nañ ku nekk lañ ko joxoon num toll dañ koy miraasaat nag boole ci ki ci war a bokk wala ñi ci war a bokk te boolewuñ leen ci woon buñ leen buñ leen buñ ko miraasee te boole leen ci kon danañ xam ñëpp itam ku nekk li mu war a am dëgg-dëgg bu ko defee ku ne lañ ko joxoon la ca ëpp mu delloo ko yooyu ñuy delloo buñ ko boolee mooy tolloog Euh, li ki kiñ joxatoon ta tam bokk ci la mu war a am wala ñuñ joxatoon tañ bokk ci li ñu waroon a am lañee di delloo mooy tolloog li ñu war a jox ki ci waroon a bokk te bokk boolewuñ ko ci woon ngir ñàkkoon koo xam ñetteelu laaj bi day wax ne ab jullit la bu am dëkkandoo bu dul jullit doon chrétien ci misaal dëkkandoo bi nekkul jullit nag am doom moom jullit bi ba bisu ngénte li jotee mu dem fa waatal ko fa ndax sañ na loolu wat doom ja dama xamul ñi nga nettalee mbiru chrétien noonu la demee mu des waaye <laughs> ndax dañu ngénte ñu ngénte di wat ak waaye daal lu mën di xew eh, wat kudul ak jullit daal sañees na ko wala boog watal watal kudul ab jullit doomam watal kudul ab jullit doomam sañes na ab jullit sañ na ko dara nekku ci ab jullit ñi mu seqal jàmm te duñ ay jullit ñu doon ay am di jàmm wala doon ay dëkkandoo wala doon ay bokk lépp luy jëflante bu rafet ak ay seq sañ ko lu ci jëmul ci mbirum diine rek lu ci jëmul ci mbirum diine kon seq yu ñuy seq ak jàppalante bu ñu jàppalante mu jëm ci mbiri àddina yi loolu lépp mën naa am seen diggante loolu la yàlla wax ki nga xam ne seq ngeen jàmm te du jullit man ngeen a seq ay jëflante yu rafet eh, na bañ a aju ci mbirum diine rek mooy daal jëflante bu rafet ak maslaa moom boobu na yóbbu mukk ci nga def loo xam ne day doon mbirum diine te moo aju ci seen diine ñoom ñeenteel laaj bi day wax ne góor gu ay way juram dugaloon ci jigéen ngir mu takk ko mooy daal nga xiirtal ko ci ngir mu takk ko mu nangu moom jigéen ja nangu eh, waaye nag mayeeguñ ko ko lu jiitu ñu ko koy may nag moom mu gis keneen gën koo bëgg ndax sañ naa takk keneen ci mu gën a bëgg wala ka ko ay waajuram euh, xiirtaloon na war a takk waaw lii de daa digee dafa digee ndax bu ñaar waxtaanee ngir ab sëy dox seen bañ nangu seeni jaboot nangu dige la dige nag ku ko def dafa war a def la mu dige waru koo bàyyi ci coobareem kon mooy moom li mu diggee da ko war a def te mooy dige na ak soxna si nga xam ne ay wéy juróom ñoo ko ca xiirtal bu gisee keneen bëgg ko nag am na sañ suñu takk ñaar bu mënee takkandoo ñaar ñëpp mën naa takkandoo ñaar ñëpp bu munta takkandoo ñaar ñépp mën naa takk yi mu digay loon ba noppi bu ca tegee ab keneen ki waaye daal kii mu digay loon moom sañ koo bàyyi di takk keneen ndax boobaa wor lay doon te yàlla da koo tere ab jullit waru koo def askor it waru def juróom juróom-ñaalu laaj bi boroom dafa bëgg a xam ndax ndox mi jóge ci climatiseur mënees na cee jàpp wala déet ndox moom dama xamut fu muy jóge nu muy amee daal waaye li am solo ci ndox daal moo xam fu mën di jóge bu fekkee daal euh, ay meloom soppikuwut ñetti melo yi ñu xam cafka gi cafka ndox rek la la ame xeet gi xeetum ndox rek la amee melo yi muy couleur bi itam couleur ndox rek la amee bu demee noonu dara soppiwu soppiku ci mënees na cee jàpp moo xam fu mën di jaar moo xam fu mën di jóge bu fekkee soppikuwut daal euh, ci anam yooyu mënees na caa jàpp damaa xamoon nag climatiseur ndox ma cee jóge moom nan la juddoo waaye nag foogu li ma gën a foog daal mooy luy laab lay doon laa gën a foog ci xam ne nag dana am lu cay soppiku ci yooyu yi boobaa nag moom duñ duñ ko mën a jëfandikoo ci jàpp waaye bu lenn soppiku ci yooyu nag des na ko mën a jëfandikoo ci jàpp juróom benn laaj bi day wax ne jigéen ju doon sëy ci béréb la yàlla dogal sëy booba jeex mu yóbbaale ay bagaasam jëmmi jamono mu amaat beneen boroom kër ba mu bëggee sëy yi bëgg yóbbaale bagaas yi mu jële woon ca sëy bu njëkk ba ñu ne ko loolu kenn du ko def muy laaj ne loolu ndax diine la walla aada la loolu de aada lay war doon aada lay war a doon lay doon dara waaye du diine moom li ñu war a njëkk nag mooy bagage yi fa jëlee yan la bu dee moo ko moom moom bu dee lum moom la nit ki moom lim moom na ko yóbbu muy jamono yi mu koy moom muy sëy ci béréb ba yore ko foofa yàlla dogal sëy ba jeex mu yóbbu ko fam nekk yàlla dogal ñu may waat ba muy sëyiwaat feneen dañ naa yóbbaale la moom foofa lu ci def nag mbirum aada leen xam naa ne waaye du mbirum diine moom eh, bu dellu moom la kon sañ na ko yóbbu fu muy dëkk fu ne bu dellu moomul nag suñu ko faay dafa faay dañu ko ne jële moom ba di ko yóbbu feneen juróom ñaareel laaj bi day wax ne kuy liggéey la ci béréb fa ñuy liggéeyee nag liggéey ba dafa laaj ñuy sol ay dàll yu rëy rëy rëy ak di soli kawas te di def saa bu julli jotee mu summi ko summi kawas yu jàpp wala da koy sonal du benn jafe foog naa la wax mu ne am na am ñu ne ko nag mën naa masaa rek ci kaw kaw kawas yi euh, loolu day te mu ne kawas yi rek la kawas yi no xam rek moom la loolu de wuute naag njëriñ moom suñu njëriñ njëriñu Imaam Maalik moom wuute naag loolu am na baat nag boo xam ne day firi dañ koy firee kawas boo xam ne moom daanañ ca sañ a waaye nag niñ ko melale bokkut kawas yi am léegi teewul nag yeneen boroom xam-xam yu dul ñi ci ngir mi ñoom am na ci ñu daganal masaa ci kawas yii rek am na ñu koy def te teg ko ci wax yi yenn borom xam-xam waaye bu dee ngir mi moom euh, kawas yii ñu xam rek kenn du ci masaa dama xamul nag jafe-jafe yi wax fu mu toll waaye bu fekkee dafa tara tara tara tar daal bu dee saa bu julli jotee dama xamul sax julli moom juróom julli yëpp foog naa du ci liggéey kaayam mën naa am gën ngaa bëri ñaari julli ñoo fay fekk mën naa am bu ba julli bu tax wax dana ci julli seen waxtu loolu loo xam ne kon dañ naan la waxtu ne nga bëgg a salaat demut noonu na kon daal bu dee koo xam ne moom daa topp boroom xam-xam bu ko daganal moom jërut mu ciy wax ay jafe-jafe ak ay jafe-jafe bi war tax ku topp li ci mi wax ay jafe-jafe warta tax mu naan day masa ci kaw kawas yi ndax jafe-jafe yoo waroon a tax xëy na ñu ne na ko def ngir ngir ngir ngir lor fooguma ne nag diir bu nit ki nekk fa muy liggéey rek yooyu dina ko fekk sole ko suñu sole ko suñu gu gu gu àgg fenn fi fooguma dina ko fekk dana ko fekk te bërëb bërëb ba muy liggéey rek kon daal kuy jëfe ngir mi moom bu masaa ci kawas yii am na nag yeneen boroom xam-xam yu ko nangu ku topp moom dana ko mën a def juróom-ñetteel laaj bi day wax ne ku bëgg a takk soxna te ay wéy juróom ànduñu ca lan la ko lislaam sant lislaam de lam ko njëkk sant moom mooy na fexe bay déggoo ki juróom ci noonu bu bëggee takk soxna fexe ba déggoo ca ak way buñ ca déggoowut nag dañuy xool lu waral way jure bañ caa ànd lu waral ñu bañ ca ànd buñ ko tegee teguwaay mooy foo xam ci loo xam ne jar na ko da leen caa war a fekki kon mooy bàyyi daa war bàyyi fekkee teg nañ ko ci li ko jar bu fekkee teguñu ko ci li ko jar nag na woy fexeleena fexeleena nanguloo bu ko dee jaar ci ñeneen itam mu jaar ko ci ñeneen bu fekkee moom xëy na dégguñu waxam te am ku mën a jaar kuñ mën a dégg waxam mu jaar ci kooka waaye daal xëccoog ñoom moom jëru ko jëru ko ndax la cee juddoo donte sax ku nekk muskàllaf moom dëgg-dëgg kilifa boppam la waaye nag ay wayjur nag cib sëy ci rawatina fii sunu sëy nun bu sëyu tubaab sax nga xam ne moom ñaar ñi sëy rek seen mbir la ñoom seen mbir la ñoom ñaar rek seen wayjur daanaka seen yoon nekku ci dee noonu fii nag waxuma la way jur waaye ña ña gën a yi sax seen yoon da caa nekk moo tax kon li ci gën mooy ñi ci seen yoon di nekk ñëpp daal bala ngaa dugg ci sëy nga fexe ba ñu ànd ci ñu ànd ci buñ ci àndul te ñàkk ànd ga tege fenn nga bàyyi bu tegewul fenn nag nga jéem a seet feneen foo jaar ba ànd loo leen ci waaye daal yenteeg ñoom jëru ko donte nag sañ na ko sañ na ko bu fekkee liñ teg sañ sañ senum ñàkk an teguwul fenn sañ naa def li mu bëgg a def waaye nag la cay juddoo moo tax jëru ko juróom-ñeental laaj bi mu ne dafa bëgg a xam lu lislaam wax lu mu àtte ci li ñuy wax planning familial ak it ndax jigéen ji ko bëggoon a def borom këram ñàkk ci ànd ndax dana ko def planning eh, planning baatu anglais la mooy nos li wax nos eh, tegu plan tegal plan dara plan nag mooy nga teg mbir nii laa bëggoon ci wàllu am doom mbirum am doom mbirum yàlla la yàlla koy dogal ci coobareem nit nag mën naa sabablu waaye daal dañuy wax ne ñaari anam moom la nit mën a sababloo ci wàllu am doomam ngir mel ne ku ku ci ku ci dugg daal ku ci dugal loxoom am na ci anam goog nangu dees ko nangu am na ci anam goog mënees ko nangu anam yëpp sax lañ mën a nangu waaye lu ci nekk ak sart la daal genn anam gi mooy nit ki dem moom ne du amati doom day def luy tax du amati doom wala dañ koy defal luy tax du amati doom loolu moom la ñuy wax yamale yamale ak njur loolu moom fenn rek lañ ko maye may bu fekkoon ne bu ambaatoon nara am doom bakkanam da cay xaj suñu ragal ne ab bakkanam dana ci xaj boobaa moom euh, dañoo war a def sax luy tax du du amati doom dañ ko war a def kon sañ na ko bu mucc sañ na ko waaye dafa war sax waaye lu génn loolu rek moom luy tee mu amati doom def nag luy tax ak am doomam sore loolu la ñu tudde planning familial loola nag danañ koy firee itam soreel soreel am jur loola moom dañuy wax ne moom bu fekkee jigéen ji ëmb yu jege da koy yóbbe lor moom ci boppam wala mu yóbbe lor doom yi doom yi muy am boobaa dana sañ def luy tax eh, am njuram sore waaye loola rek itam mooy tax mu sañ def bu fekkee daal am mbiram bu je bu jegee da ko yóbbe lor moom mbaa mu yóbbe ko doom yi muy am dana sañ a def li tax mu soree danañ ko mën a defal li tax mu soree lu mu ci mën di doon da cee war a déggoo ak borom këram bu fekkee ne nag lor dëgg-dëgg da ko caa nara dal borom këram bu ci àndut itam nag lu tey mu def ko ndax day sàmm day sàmm boppam day sàmm ak wéram day sàmm ak dundam day sàmm ak dundam day sàmm ak wéram moo tax borom kër bi kon dañ ko war a xamal li tax bu fekkee fuñ ko fu mu ko sañ a defe la li tax mu def ko bu dee lu ko jar la waru caa ñàkk ànd bu ci ànd ci tam nag dana sañ a xet ci gënam foofu ndax topp borom kër ak sopp keneen ku mën di doon dañ koo tënk ci mu bañ a jooyoo ak lu yàlla bëgg sàmm nag nit sàmm ak wéram sàmm bakkanam loolu ko yàlla digal la bu ko ko bëgg tere dana dana ko sañ dana sañ a daña sañ ca loola fukkeelu laaj bi day wax na jigéen ju ju ñu maye bam am ay doom sax jóge ci sëy boobu ñu mayewaat ko buñ koy mayewaat lan moo war a nekk ak canam ñaata lañ war a xayma ak canam amul can amul canu kenn kuñ naan nangam la war a doon waaye dañ naan kay bu dee ci ak can warta yées nangam warta yées nangam nag bokkut ak nangam la war doon loolu mu warta yées nag moom la nattale jamono yi ko sëñ Muntaxa mujj mujj santaane ñu nattale ko nag suñ ko juróomi junni la ak ñaar téeméer kon fi nii li munta ñàkk ci can mooy loolu waaye mën na koo weesu mënu koo yées waaye mën na koo weesu euh, loolu dañ jublu ci wuñ naan can waaye jubluwuñ ne nangam lay doon waaye munta yées nangam la ñuy wax te mooy juróomi junni ñaar téeméer fi mu ne ci biir murid fukkeelu laaj bi ak benn te moo ci mujj Euh, dafa am laaya ju ñëw ci saaru albaqara juróom benn fukkeelu laaya ak ñaar yàlla di ci wax ne inna alladina amanu walladina haadu wannasara wassaabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun wa saabiina jiñ ci tudd nag te ci yenn yi ñu naan wa saabuun wa saabiin bu dee ci warsh ñoom la laaj ñooy laaya ji de am na yeneen laaya yu ñëwaat ci alxuraan tam yoo xam ne ñook laaya ji jege nañ waaye dana fa lim ñim lim fii am na ñun dolli sax ñeneen day wane rek ne ñi nga xam ne jiitu nañ yonent yàlla muhammad di ñëw koo ci xam ne yonent ba mu dajeeloon gëm na ko gëm yàlla doon jëf lu baax ñoo ñi nga xam ne ñooy dajanteeg yonent yàlla Muhammad te gëm ko rek ñooy yem yàlla dana leen fay te buñ faatoo itam li ñuy bàyyi àddina bi jam leen leen di naqari li ñuy fekk alaxar itam du leen lañ ci ragal ci biir ñun tudd nag da caa tudd as saabuun wala as saabi oon ñooñu nag borom xam-xam yi wut na leen firee am na ñu ne mooy ñu ñooñ woote bi yonent àggul ci ñoom waaye dañ doon farlul seen bopp ak di xalaatal seen bopp rek bay def lu baax loolu daal mel tudd mooy ñi tudde yahud yi waaye ñi nga xam ne Seydina Moussa euh, ñoo ne moom lañ gëm ñooñu mu wax ne koo ci xam ne gëmoon ko dëgg topp ci dëgg-dëgg ko kenam jigle woon ak saabi oon yi ñoom ak ñi topp Seydina Muhammad gëm ko ñoo yam ñoo yam waaye boo ñi nga xam ne rek jóge nañ ci liggéey Seydina Muhammad waaye Seydina Muhammad mu xasee ñoo moom euh, ku yëg ab wooteem rek moom rek la war a topp bu ko toppul nag leneen lu mu nekkoon du ko amal njëriñ euh, kon loolu mooy fukki laaj ak benn yi ci dikkoon doon ci jéem a topp suñu kam kàttan di dégglu ñëpp nag assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu